léegi yaa xam ñu terminer mhm. yaa xam xaw ma ndax mas na am ci taarixu soleil. mais dafa am un fait bouleversant. Mhm. août deux mille vingt deux. Mhm. le journal Le Soleil n'est pas n'est pas n'est pas apparu. Euh, loolu mu ñëw nekk le summum euh, ci tension yi nga xam ne. Euh, soleil traversé na ko employé di demander ton ton ton départ. Mhm. Euh, ñii naan da ngay toog toog nga deux ans euh, teguloo fa teguloo fa tànk bon. Mhm. c'est c'est c'est c'est compréhensible. Mhm. mais loolu nekkul loo xam ne c'est une tâche. dans dans l'histoire de cette institution. médiatique nationale. d'abord vérité pour vérité c'est totalement faux. soleil mos na toog génnul mais les causes étaient totalement différentes de la am les causes c'était plutôt autre chose mais attends <laughs> loolu am man la njëkk a traumatisé man la njëkk a metti d'autant plus que feebaru ma woon tukkiwu ma woon mi ngi fi mais ay la woon xam nga ay seytaane aujourd'hui seytaane boobu je tous du bois mi ngi suñu ginnaaw ba nga xam ni ñi ngi ci beneen dynamique boo xam ni ñi ngay liggéey ëpp c'était clair coow soleil boobu su fekkoon ci rek la yam on est une famille mais c'est normal loxo yi nekkoon ci biti dugg si dafa bare. ah bon oui mais c'est très normal aussi parce que j'ai des ennemis politique j'ai des adversaires politiques et ban tamit am na ñu mu mos a yoo xam ne bon yaa xam quand il a des problèmes nangal ma ñëw upp upp uppukaay laay indi pour ñu upp taal bi moo tax jooytuwuma ko c'est légitime mais de cette confrontation metti woon na trop metti les son là wax ju ñaaw bind gu ñaaw on est une même famille alors kes ce qu'il y avait lieu de faire lieu de faire c'était bon xam nga loolu taxoon li gën a moytu woon débat may génn ci média yi parce que ala kulli al foo jaar ci journaliste yi média su ma ñëwee ci may mënu foog nga wax ci affaire bi alors que loo ci mbir tension bi loo ciy wax rek day ah day yokk mais Soleil ak créé des crises ah may may mun a xoolal xam nga léegi lépp dëkk bi dañ koy ramener à dix ans soo déggee nit ñi di wax Sénégal dafa mel ni Sénégal deux mille treize euh, la ko yàlla sàkk quoi mais soleil a eu des secousses mais le problème. mais mais mais mais yaa xam man les souvenirs que j'ai mm -hmm. euh, tension yi soleil traversé sous ton magistère euh, mun naa ne. xam nga lu tax xam nga lu tax xam nga lu tax soo jëlee yaa xam ak Cheikh Thiam du ñu benn. mais Yaayu El Hadj Kassé. non avant xam nga Cheikh Thiam moom ak. Yaayu ne membre e du parti au pouvoir non xam nga lu ci ba ci El Hadj Kassé. ma tëb ki nga xam ne moom laa fuutu. du woon benn Cheikh Thiam n'avait pas politique Cheikh Thiam du woon biri biri dawul coow man dama man dama ñëw ak sama poussière ma yàgg mais étiqueté ma étiqueté ma lii étiqueté ma et puis Cheikh Thiam n'était pas comme moi c'était une personne pondérée dal man je vif parce que affaire bi su fekkoon depuis le début benn kudd du yëngatu ah mais am na loo xam day may ni cuuc mën leen cuuc mais loolu. est-ce que sa cër la aussi ñu ne la cuuc nga ne cuuc. ah non cëru ñëpp la xam nga dama la wax benn affaire nga toog ñu lay wax cuuc cuuc rek loolu day nekk fekk nga nekk yonant walliw wala consort man du ma benn sion man nit la nit ordinaire la je man je pas hypocrite donc mais à dama xam ni aussi. le problème c'est que naa concentré wu xool ñoom li ñuy wax lépp li ci rasonable ma jéem ko kii moo gën confrontation parce que dès départ confrontation ba fu muy mujjee suñ ma tooñee tooññaar bi ma ba tooñaat ma j'aurais j'aurais tort. vous en porterez la non parce que déjà c'était mon image. c'était que wéy booyu Macky Sall ni ñu ko fi indi dafa tàng dafa lii dafa lii donc tort yi ma amul dëgg bi ma am duñ ko gis donc mais. après si laa wékku ci loolu xam ne ensuite aussi njaboot la ba nga xam ne léegi macha allah je trouve du bois le gros bi ñu indi woon blocage yi saafara nañ ko am na nag yeneen ñu des. juboo ngeen léegi. mais attends musuñu xuloo ba du ñu wax mosul am. mais si le débat était mais mais terewul ñoo bokk kër gi. le dialogue était rompu waxuma dialogue mais c'est-à-dire musuñu musuñu yegg ba nga xam ne dinañ romb ci couloir. rombante duñ nuyoo non c'est-à-dire la confrontation était épique et parce que aussi su fekkoon benn Daouda Ndiaye moo fa nekk wala Daouda si wala Pathé Sow peut-être benn c'était yaa xam affaire ñu ñu gonflé ko te et puis mais je n'ai pas eu que des je n'ai je pas que des amis dans la presse j'ai plus de gens qui m'en veulent que peut-être qui avec moi les gens en ont profité pour xambataal beeg consort mais alhamdulilah ba nga xam ne léegi ci logique bi ñu nekk mooy ñu ngi toog di wax di régler problème yi et puis euh, xam man damay jéem a toujours copier président Macky Sall xam lim laa loo xam ni dama ko war a bàyyi ah du wàññi dara ci man sama jëm du wàññi dara sama tur du ma yóbbu suba ñu woo ma di ma laaj. nga xam ne si ma rek la dépendre ma joxe ko dama koy joxe parce que loolu mooy respecter un peu confiance bi président am mais c'est vrai que benn moment xam nga xiiroo fu mu amee xeex fu mu amee kenn ko ne day taxaw ci position fi nga ma jë mais loolu génn nañ ci bu yàgg ba nga xam ni ñu parce que quasiment à quatre-vingt-dix-neuf pour cent ñi mu ko séqal ñëpp samay rakk lañu peut-être su ma amee ku ma ciy mag une ou deux personnes lay doon mais le y a eu des que yooyu yëpp am naay ay dégâts yoo xam ne ñu ngi koy reconstituer ba nga xam ni incha allah bis bu nga xam ni affaire yi par na magee dem man damay topp ak moom dem comme li ma doon wax lii sama objectif mooy que suba su ma demee ba jóge soleil ba keneen ñëw fa su ma toogee nam ma leen jaar naan ataay su ma leen namee jaag seetaan ku ma ci soxla kii parce que le souvenir est important mais quelque part ma laal bant je me dis que je suis un privilégié ah, un privilégié mooy koo xam ne da ngay toog xam ci place bu nguur juróom-benn weer moo la dese mais juróom-benn weer yooyu soo dee nit danga nga ciy def le plus que maximum pour def lu baax te loolu mooy sama objectif ci juróom-benn weer ak ma dalat léegi damay xool njombe yi ma fa mas def mu metti nit yi seen xool ma jëm ko faj ba seen xool sedd génne fi par la grande porte dans juróom-benn weer bon et puis voilà dellu jàngewaat wala dugg ci. <laughs> Euh, ma terminer par loolu. Mhm. Euh, lan moo la yedd. Mhm. Euh, ba ngay moytu nekkatoo sañ wax. nekkatoo mhm. sañ def ngay conciliant qu'est-ce qui a été déterminant lu tax nga nga nga ci lu bari. ci ci benn témérité bi pour être très honnête. Mm. c'est la souffrance que je causais à à ma famille. et quand je dis ma famille boo ma ko yemale sama yaay mag la su bari yëgatu ko mag na trop mais peut-être sama soxna samay doom am naa doom boo xam ne day nekk YouTube su ma saagaa gars yi su ma saagaa mu ñëw après di mu poser ay questions et ensuite surtout aussi am naa mag bi nga xam ni sama sama sama sama baay bi mu wàccee liggéey moo ma yar muy Pape Yaama yedd ma si lu bare président aussi yedd ma si lu bare bon benn moment bon li may dëgër dëgër bopp yëpp yedd bi dama ko appliqué par force parce que mënutuma woon dama feebaroon mais bi ma tawatee xam nga soo tawatee sore sore pression yi ngay toog sa xel di doog ko dellu yi nga day de ma ni peut-être lu si bare man maa ko teg sama bopp parce que nu ma ko tegee sama bopp dëgër xam nga dëgër baaxul dëgër et mbooloo surtout ci affaire démocratie ah bul xëccu lu bare dama doon xëccu si loo xam ni bon waroon mënoon naa ko waaye mais li ma gën a déterminé mooy j'ai senti que dans mon entourage que ça soit familial que ça soit des amis que ça soit ñoo xam ne mais kii je leur ko li xewoon ak yooyu ak li ñu doon dégg par exemple <laughs> am naa ay am naa ñaari sœur ñu ngi dund à part sama frère bi ma cité ñoom loolu da doon metti donc ma ni bon ces gens là euh, bon ma man maay caat ci kër gi ñoom ñëpp ñoo ma ñoo ma kii euh, toog heure bi yónneewuma leen ay oto gatoog ay ay yu neex ak yooyu euh, bon peut-être li ñu waroon profiter ci position yi ma nekk pour lan la ñuy profiter dégg ma toujours ci ay njombe ñu may saaga di ma dëkkal fu ma dëkkoo mu leen di metti te duñ ko am fu ñu ko fajee donc parce que aussi il faut pas être égoïste may les positions là da ngay dem ba nga xam ne da ngay teg say mbokk say nit naqar boo xam ne mérité wuñ ko donc tout ça et puis et puis le président m'a beaucoup conseillé m'a beaucoup conseillé m'a dit bon voilà sur ce point ya xam c'est tu as tellement tort que c'est inutile pourquoi. parce que le président a été très affecté par la non parution du. non le président ce qu'il a le plus affecté quand je suis tombé malade c'était son frère on a vu si que ça l'a affecté et moi le fait de voir le président affecté ça m'a affecté et je m'en suis voulu je dis que mais cet homme-là xool fi ma jaar sagal na ma façon sagal bu nekk dafa nu ma mais moi qu'est-ce que je peux faire maintenant au lieu bu njëkk ma nekk di ko xeexal xeexal bu ñu tuddee ma sola mais voilà kii pro temps kii bu nekk man ma koy indi problème et je me suis juré ça dépendait que de bon alors je suis venu avec les nañ ko teg ci table bi li ci raisonnable nga xam ne dama ko mën def du ma wàññi tous ah li ma ci mën freiné mooy égo ma teg ko fële parce que quelque part mais Macky Sall su toppoon ego ba am kon duñu toll fi ñu toll donc voilà bon mais tout ça dama si sant yàlla parce que quand même ça a été limite limite limite limite limite boo xam ni bon c'était normal que à chaque moment chaque mercredi doon xaar yaa xam day jóge fii Macky Sall moi je c'est les raisons xam ni bon Macky Sall c'est quelqu'un bon dama ko xam daf ma bëgg man xam nga ni ma ko bëggee ni nga xamal daf ma jaral lu nekk mais man tamit moom xam naa ne daf benn moment mi xam ne dama dem ma sentir ni teg naa ko pen parce que voilà maa ngi dugg ci des batailles inutiles noonu nañu ma si bañ dégg et le fait d'être dans ces ma mun l'autre dégât mooy que j'étais inutile pour le président parce que président fi ma soxla woon du ma nekk ñu may dégg ay soleil fi ma soxla woon c'était front politique mais xam nga temps boobu ah xam nga ma saa waay tal naa lu nekk lu dul sama fee xam nga xale yi tamit ñi ma nekkul dañ kàccoor fu ma tourné dañuy dóor ma ay affaire fu ma tourné talatuma ba ay affaire donc j'étais inutile xoolal inutile pour moi-même. je m'occupais <laughs> ah non so xaw nañ ma rey laa la